asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbaa eewu ngeen a jàmm rek ñun mi eewu nañoo jàmm yal nañ indoo jàmm dama ñëwoon rek ah, si suba si nii rek pour adresse lu ndaw a ndaw a ndaw a rek loo xam ah, mu ngi dox te ni moo demee tam easy wut man yëfi tribalism bokkuma si te duma tribalism waaye soose piir la yaay soose papa soose dañ ma ne naa suusuu waaye musuma dugal yëfi tribalism si suma mbir oo ci suma affaire musuta am waaye tam li nga xam ne mu ngi ne jaxarang ci mooy suñ proof li nga xam ne mu ngi jaxaraan su biti mooy suñ proof ñun ñëpp nit njaay lañ nag dañ dee mistake di def mistake waaye nag soo yóbbu information di ko jox nit koo xam ne óor na la ne mu ngi fragile mu ngi am lu ko naxari mu ngi mer ci affaire tribalisme bi dox na nekk loo xam ne digga la parce que ñun ñëpp we act on impulse fi nekka nii we are on eh, eh, naka speed dial we are on speed dial so nañ leen ñu seet ngir yàlla yonent ba information yi ñoo joxante mu correct mu nekk lu leer te koo xam ne ofen nañ la o laa ofen balaa ngeen a jël di ko mettitlu indi leen ko ci open bi ñun ñëpp àddina si yëpp gis ko ñu wax ci it's tarapi gis nga ñi nga xam ne ñooy jóg di def yëfi tribalism yi nii di post ci seen DP yi di sàgga soose yi di ngaña soose yi di lifin soose yi ñooñu man dama leen yërëm demaleen yërëm parce que Gambie ñun ñëpp suñ deret yi dafa jaxasoo ku nekka kenn du taxaw Gambie ne man awma suma benn bokka boo xam ne laalante wuta soose mu awma suta sëya soose oo awma ay jarbaat yu soose oo awma ci suma mbokk yi kenn koo xam ne am na lum jëflante soose kenn du ko wax nañ leen ñu moytu ma ñëw ci a recent post bu ma def lii bu yaagut nii about eh, eh, ki eh, alpha photos vip photos people dañ dee joxe information te information yiñ dee joxe def dee rong bugga naa yéen ñëpp ngeen jël responsibility boo xam ne soo joxe information na correct sooy wax ci nit na correct alfa post na something like uh, uh, ñu ne dafa dem naan moom bugut soose yi dugg na fii génn na fii waaye loolu yëpp dëgga nekku ci loolu yëpp dëgga nekku ci man nag ma binda ne nañ ko boycott waaye am very sorry pour ma binda loolu because man itam ak ni ma mel waroon naa dem ma seet déglu fam ko waxee afta dem déglu gisuma fen kum ko waxe waaye nag ñaan naa leen ngir yàlla yoneen taba yéen ñëpp mboolem koo xam ne yaa folo alpha demal folo ko mboolem koo xam ne on eh, bugga nga ko folo nga folo ko because alpha defu fi dara lu long moom fi mu féetoo na ko li moo def mu ngi koo def nëbbuwu ci mu ngi koo def ci open bi waaye soo leen di yóbbu information tam na nekka reer góor fu maa ngi faa jéggalu alpha bu baax a baax a baax a baax suma raka la nag xaw ma ko musuma koo gis magam cee xaw ko musuma koo gis waaye saa yu nekk ñaareel su may waxa su waa kër dinaa dégga ku ko ci naan ah cee fooy dem cee nii cee nene muy jàmmalante ñoom ñu nekk ay am di jàmm parce que man dama teel a génn Gambia ñi ci uppa xawma ma leen waaye nag may jéggalu poos boobu noonu te di wax eh, rek ne Euh, su fekkee ne post naa anything loo xam ne waruma ko post dinaa ko dinaa dee génn dinaa génn ma apologize ma delete ko ma apologize waaye li ma wax ci affaire yëfi soose tribalism bi nañ leen ñu bàyyi suñ xel bu baax because as ñun ñu nekka soose ñun ñoo ba wàcca suñ àndax man mi toog fii di waxa yéen soose piir laa soose laa nampa suma yaay soose suma pa soose waaye léegi-léegi dañ dee wàcc suñ ànda yéen ban olof oo ban joolaa oo ban pël oo ban séeréer ngeen gis ban séeréer ngeen gis yàlla may ko mu am programme am mu dem indi bëngokati olof yi ñu ñëw di ko bëngol ci biir programme am ci ta mbaamu am mbaa mu indi sabari soose mu ñëw di ko sabaral gis nga xeet bu nekk danga respect sa aada respect sa boppa ba nga xam ne foo taxaw buñ luñ la wax bu la méttee rekk wane nga ne li nga war a def def nga ko ñun it's very high time ñu seetaat suñ boppa jagaraat suñ toogaay njagaraatuñ toogaay UDP is UDP soose yi ñun soose lañ UDP is UDP ñun soose lañ te UDP as a party has nothing to do with ñun as doomi soose ñun as doomi soose UDP the party has nothing to do with us jawara soose la te ruu na Gambia te nguuri jawara la fa uppa yeneen xeet yee fa uppoon soose yi mere jawara gis nga ñun Gambia bi ñun kenn mënuñoo satisfy ñun ñëpp a em kumba tanewul tëggeel ñun ñëpp em kumba tanewul tëggeel yàlla nag def ñu binda bokkuñ jikko yàlla def ñu ñu ñëwee as different head as different laaka waaye tam disrespect bi nga xam ne ñu ngi disrespect soose yi yabaate bi ñoo yab soose yi soo waxee ñu naan soose lii soose lële soose lële hey ñun soose yi we contribute a lot ci life yi ñu bari ñoo xam ne du suñu xeet man I for one mun naa garanti suma boppa loolu ne man soose laa piir piir piir piir waaye ñi maa njëriñoo ñépp ci biti ñi maa njëriñoo ñépp ci biti ñi ci uppa duñ soose laaluñ sax si soose ñi ma defal si suma ñaxa gi ñi ci uppa laaluñ sax si soose ndig yar gu rafet ak dëkkandoor gu rafet gu ma dëkkaa ñoom ak jàmm ju ma ama ñoom nañ leen ñu bàyyi yenn yi nañ leen ñu bàyyi yenn yi man soose laa olof laa joolaa laa pël laa nañ leen ñu ko bàyyi gis ngeen suñ bàyyiwut yëfi problème xeet yi mooy taal si suñ dëkk bi waaye problème xeet bi sax li tax mu gën a métti si suñ dëkk bi parce que président biñ teg si suñ dëkk bi sax dama ne woon duma ma waxati dara ci Gambia plateforme bu mu taxaw nii la ko campagne campagne am yëpp tribalisme la campagne am yëpp divide soose yi la campagne am yëpp pour divide suñ dëkka bi la divide génn divide soose yi yéen Adama Baro mi ngeen fa teg naan buggu leen soose ruur leen 50 percent of Adama Baro or 60% of Adama Barrow is source léegi cere ji bugga naa ñeex mi waaye bugguma jën bi ci ñeex bi wax leen ma yéen la kanalee naa ruul fi mu nekk ci seen dëkk bi MPP ña fa ëppa ñëpp ñoom ñoom ñoom kii ñëpp soose lañ ñoom Faabu Saane soose lañ baa dem boo jaata mi taxaw soo saaga soose yi baa dem boo mi taxaw saaga soose yi soose la yéen nag wax leen ma fan ngeen gisut soose si NPP ak fan ngeen gisut soose si Adama Barrow li la ñoo wax ci hypocrite si ak ñàkk xamadi ak doyadi yéen amuleen ñiy binda ci soose yi amuñ dara luñ wax soose am na ci ñoo xam ne ku dem sax sooseele naa jox ñu lekk sooseele naa jox ñu naan sooseele naa teg ci palaas. man de ay fa wan wax naa ko suñ waa kër programme amate suñ kër ngeen oo bongo goo xam ne làkkut soose oo ngeen oo nit koo xam ne làkkut soose kon siidami dami out of it consider me out of it parce que man dam dinaa leen prouval suma soose yaa dëgga duma teree laaka olof duma teree laaka joola duma teree laaka daaka yi ma dégga waaye suma li ma li ñax maa suma mbokki soose yee koo bokka fi mu nekka ñu ne ku kuy daxa daxal mu dem sa kër ku ràcca tey sa kanam dëgga dañ ko war di doxal bugguma sosey bugguma sosey te góori sose bu am aleel bu génnoon pour takka jabar ñëpp di daw si gannaawam ku ci am moto bu rafet am ci kër gu rafet wax leen ma ban soose bu tekki bu amul jabari olof ban ban bu tekki bu amul jabari olof ban olof bu tekki ban soose bu tekki bu amul jabari pël ban soose bu tekki bu amul jabari séeréer ñun ñoo dee góo ñun soose dañoo génn si suñ riis di séya ñeneen ñi waaye am na riis yoo xam ne duñ génn si seen biir askan pour séyi jee keneen waaye ñun soose loolu yépp du suñ problème loolu yépp du suñ problème because gis nañ ne nit nit la rek nit ki nga bugg a moom ngaa séyal te gis nga nonsense yi ñoo def ni bum tax kenn ku tase yow muy góori soose muy jigéeni soose muy jigéen e, jigéeni e, góori sa doom bugg a jabari olof may ko ko sa doom sa sa burooda bugg a jabari olof na ko takki nga bugg a jëkkari soose séyala moom nga bëgg a jëkkari olof mbaa joola mbaa pël séyala moom because after all soose soose soose soose soose soose suñ baamee ne dañ sañ see binda soose joolaa pël séeréer déedéet dangaa dee di seen seebin la ñoo jël ñun ñëpp ñu ñuuxuñu ci ti seebin bi tas moom la ñoo jël ñun ñëpp ñu ñuuxuñu ci waaye ñiy binda ñooñu dee have their evil heart rek waaye nekkut ne olof yépp dañ jóg di xeex soose mbaa poli yépp jóg di xeex soose mbaa joolaa yépp jóg di xeex soose ñi demoon kër daa Dabo Demba soo leen ko seetloo pol dégg naa fa ñu laaka olof dégg naa fa ñu laaka soose dégg naa ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi fa ay olof piir lañ ñii ay soose piir ñii ay joolaa ñii ay pol ñii ay yeneen xeet waaw léegi su boor setee nga dem te yow su fekkee ne dem nga nga binda ci sa whatsapp status mbaa nga dem ci sa facebook eh, di fa binda di ŋaña soose di ooyee soose evil nga xëy suba sa sa dëkkandoor yi nga gëstu gis ne ñi ci uppa soose nga gëstu gis beneen xeet nga gis ne sa dëkkandoor bi oo sa xariti soose bi gis na yow sa whatsapp status bi how would you feel waaye lii mooy Gambia dañ féeg ñun ñi ci uppa dañ féeg man tey su ma gisee ku duga li ma laaka olof yëpp yëpp yëpp yëpp on li ma nekk eh, eh, eh, doomi Gambie yëpp ma gis ma dugg ci suma status ay xarit gis mu binda dara ci soose o mu wax ci dara dara ci soose bés boobu laa laa block bés boobu nga maa gëj a dégga parce que man duma la def loolu man duma jóg man suma xariti olof yi tey man duma jóg ne maa ngi leen a wax dara loo seen xeet lu lee a naxari suma xariti pël yi du ma wax dara ci seen xeet lu leen naxari suma xariti joolaa yi du ma def loolu parce que ñun suñ xaritoo déggu na déggu goo xam ne dara mu mënuñoo divide muy suma xariti joolaa bi muy suma pël bi muy suma séeréer bi muy suma joolaa bi muy suma manjaago bi ñun ñëpp ak suma akubee suma ku ne man ñi ma àndal different xeet lañ waaye dañ mel ni ñu bokka ndeya baay ñu bokk ndeya baay dara mënu ñoo xaajaloo te nekkul ne fake maslala or anything ànd nañ ay forty something ñi ay fifty something te ba tey ñu ngee ànd te ñoom ñëpp ñoo mettitlu li li ñoo gis ci eh, eh, post yeeg status yeeg nonsense yi dañ ko mettitlu ba nga xam ne am na suma xarit boo xam ne moom dafa wax a wax wax ma ne ko yow nim la méttee métteewu ma ko mu ne ma axakañ metti la ma ko méttee parce que lum pon pon xaritoogu yàgga mbokka la mu ne ma tey ku bu soose jógoon di saaga eh, olof di nga jóg defante ko ba am saf mu ne ma ak ni ma la xamee ak sa jikko ni mel añ leen ñu jagaraat suñ toogaay añ leen ñu seetaat suñ boppa waxu ma ne waxu ma ne Gambia divide tudde waaye kilifa yi kilifa Gambia kilifa yi nekk toog fa rek pour seen poos kilifa diine yi ñoo ooyee ñooy suñ kilifa diine yi kilifa jullit yi parce que lii division bii nii ak problème bi yépp ci ñun jullit la nekk affaire xeet la nekk aku yaa ngee toppatoo seen soxla di toppatoo seen biir suma mbokki gourmet yi ñoo ñu ngi toppatoo seen soxla bokkuñ ci yëfi xeet añ leen ñu very mindful balaa ñoo taal suñ dëkka bi di yëfi xeet balaa ñoo indi tribal war suñ dëkka bi gis ngeen Sierra Leone la fa xew Rwanda la fa xew yeneen dëkk yi am tribal woo gis ngeen yi def li fa xew te ñun Gambia ñun xamuñ coono ñun Gambia xamuñ coono xamuñ xeex xamuñ woo waaye ñi nga xam ne tam ñu ngi jóg di bindanaan ah bilaay man I hate democracy I don't want democracy in our country xoola democracy li moo indi I want dictate to sit back moytu leen wish when you wish wish for the best parce que ba ba ñoo coono ñun ñëpp a coono ci ci ci ci nguur yi ci eh, eh, dunda giñ ko dunda ci Yaya Jammeh ñun ñëpp kër yu bari la laal man mi tëdd fii suma mag bu ma bokkal ndeya baay la rey moo tax su nit bindee dara ci yëfi waa ah, bugguma démocratie dictatorship laa binda ma dugg si sa ma dugg si suma facebook bi ma block la parce que bëgguma koo gis aw ma nothing against kuy wax ci Yaya Jammeh di post Yaya parce que am nga sa right waaye ñëw di ñu won li ñu Yaya Jammeh def ak lim def suñ mbokk yi yow you are fine with it because laalu la loolu is too much is too much gis nga suñ dëkk bi mu ngi in a state of fragile dëkk bi mun naa takk anytime dëkk bi mun naa explode anytime and my advice go to IGP controlal ni nga contrôler crowd doo jóg rek dem fekk crowd provoke sanity gas man dama fogoon ne ñu ne yéen train nañ leen professionally pour crowd control waaye militants yu dem rek dem ci seen parti liida comme ni ñëpp génnee di dem ci seen parti leader yi ngeen dem fekkaleen fa di di jël tiyagas di ko dugal ci néegi Ousseynou Daabo bi loolu dafa rong ba pare bi ngeen dem yéen a ngi mel ni da ngeen naa dem wooyi kan ngeen wooyal yéen jàngu leen ci ci ci ci li paase ci li def student yi jàngu ci lingeen ngeen def démonstrate ñi doon démonstrate UDP seen exécutif yi seen nit ñi jàngu leen ci TRRC bi jàngu ci dara li jongu la si def jàngu ci IGP sooy dogo dogo pour toog ci sa plaas bi yow xamal ne plaas boobu doo fa toog soo do the right thing sooy dem nga dema sa intégrité bàyyi leen di seen PIU bi sooy control crowd doo dema tiyaagaasa nonsense yi rek dem rek sànni ko ba pare lu day ni jigéen ngeen jàpp ko di ko dóor dóor yu metti yooyu noonu ndax yéen am ngeen xol yi yërmande su deen seen rakka la mbaa seen yaay yi mbaa seen mag yi saa yu nekk wa wax ji lañ leen dee wax yen amuleen leen jom yéen doo dee rus ndax yéen amuleen jom doo dee rus dem toog ngeen monitor crowd bi rek comme que ñu ngi peaceful toog man ki ma ko wax kooku musuma wax fente kooku ci dëgg rek laa dox tey bu militant ci UDP yi nekkoon di distop foofu di def nonsense dina ko bi dina ko bind ci Facebook am bi ba pare dina ko wax waaye dafa Ousseynou Dapo dafa génn di wax a ñoom mu wax a ñoom ba pare ñu ne ko ok mu ne leen toog leen ngeen añ ba pare soo leen añee ba pare ku nekk ñibbi moom ni leen waxee noonu ne leen toog leen ngeen añ soo leen añee ba pare ñibi niñ toogee peacefully si seen bunti parti leader di di di di lifin kaam defuñ dara distopuñ kenn bloguñ trafic noonu la PIU bi ñëwee door di dal si seen kow di sànni yaa gaas di riitee jigéen ñi di leen dóor just because ñu ngi sol eh, tisaati UDP te NPP militant si ñu ngi génn di provoque UDP di génn di di leen fekki fañ nekka di bugg di leen di stop waaye ndax yéen gis ngeen jël ngeen kenn koo xam ne NPP la dóor ko o riitee ko ba pare ñuy wax ngeen ñàkk a jom on professionnel ba bugg a dee ñi ngeen riitee seen daalay des fa ngeen jël ko paak ko rade ko di ko dugal eh, si seen social media who the hell are you kenn moomut Gambia tribe moomu ko benn benn parti moomu ko NPP moomut Gambia Paro moomut Gambia Gambia pour ñëpp la suñ rijegee li seen results dañ dem pour sympathise seen seen leader seen parti leader so añ leen ñu bàyyi noonu seen si hypocrite biñ nekkee si suñ biir ñun rekk nekk ay bukki yu sàngoo maa ngi gis yuut su dem di aji nataali Essa Mbaye Fall bi di def yooyu waaye man I feel ne ñoom they are angry with him man Essa suma broda la te duma ñëw fii di ko support ci lu dul dëgga ba Essa xamee du nangu risol si daf ci waroon a taxaw mu dëgër ci waaye bu mu jóg àndaa maama Kande dem ba kër Ousseynou Dabo ñu toog wax Ousseynou daabo mu génnaat defaat mu def on you toonam génna ne moom daal accept na risol si balaam doon def loolu dafa waroon a njëkk dem toog waxtaan ak xelam balaa moo jóg sleep on it balaa moo jóg ne mu ngee dem ci Ousseynou Dabo in that moment in that impulse ba pare génn a ñëw congratulate Baro bugg a dem noonu déedéet because am na ñoo xam ne they are angry am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi mer ci li xapun soo ñooñu dañoo génn a wone seen boppa dañoo génn a wane seen bopp te youth su mer la te yow Essa if you are for the youth maa ngi laa advice always do the right thing bul dee jóg di def things on impulse bul dee jóg ne yaa ngee dem pour bokk ci loo xam ne yow óor na la ne doo ci mun a dem sa sa sa conscience mënu la koo may waruloo woon a dem a tool kër Ousseynou for the first thing munoon nga koo kool nga xam li nga xam lim fiil ba pare den nga dem nga seet ndax yow nga wax sa pooling agency waxa sa executive waxa sa gaay ba nga xam ne war nga xam nga li la leer su fekkee ne danga génn ànda Ousainou Mama kondem risol si nga génn maam a Mama kondem condemn results man li nga def dinaa ko kondem sa sa number one fan la sa broda la sa sista la sorry te dañ dee message dinañ wax voice audio every time su ma la soxlee because xam naa ne léegi-léegi doo dee am jot waaye lii moom warutoon a am and it's a mistake and I think that you should come out nga apologize to the entire nation ak nga apologize the entire youth si nga xam ne yow they are your you are their role models loolu rek laa am pour wax leen ba pare añ leen ñu bànde bàndaa suñu xel yéen UDP militants yi yéen laa ñëw pour waxal seen pati liida bi wax naa yéen mu ne ngeen dem toog ngeen may ko mu def liggéeyam moo exécutif bi soo def leen loolu ngeen may ko mu toog mu def liggéeyam moo exécutif am bi suñ paree lu ci mun di nekk dinañ leen ko wax dem leen ngeen toog Gambia medical system bi baaxut Gambia gis ngeen li dee happen PIU bi de are still barbaric may leen oncle Ousseynou Diama mu mun a relax may leen ko mu relax dafa am family am jaboot am life nekkul ne life am bi yëpp mu ngi feebar yéen si seen bopp yéen a war a yërëm seen parti leader respect li moo wax ngeen dem toog may ku mu def liggéeyam may leen ko loolu dama leen ko ñaan mu ngi leen ko ñaan def na ko ba woyal leen yëpp pour neexal leen ngeen xam ne yéen seen parti leader is a very peaceful intelligent and honest man intelligent na xones na bugut problème Ousseynou xeex naa Yaya Jammeh for twenty two du mun a jóg nag na mu xeex a baro daf ko ignore di ko seetaan waaye bu leen jox nguuri baro gi chance pour ñu ñëw di disrespect Ousseynou Dabo Kiram bu leen ko nangu fi ngeen teg Ousseynou is very high te fi leen Ousseynou teg is very high ñaan naa leen ngir yàlla yóneen te ba deelu leen ci seen kër yi please <coughs> ngeen ñaanal ko ñaanal leen ko ba pare may ko mu rest these days because he has a long journey ahead of him su fekkee bugga ngeen us oncle de parce stress bii ak ñàkk a noppaleku bi sax war na gën dina mun a gën a tax ni moo jóg di taxaw docteur def ko ne muy toog di relax mu wàññi taxaw yee yooyu waaye Ousseynou just pour please leen just pour rek li ngeen bugga yéen militant sam yi yéen waa UDP ah dafa génn di wax ak def na ko béy béy béy leen naa béy woyal and you know the guy is peaceful dem leen rek dama leen ñaan ngeen toog te yéen ñëpp toog leen ci seen kër yi bu leen dem kër Ousseynou bàyyi leen ko njabootam gi ñu am dat moment of peace ak familleem ak euh, milita euh, ak executive bi parce que ñu ngi liggéey soo leen buggee anything ba pare seen bureau yi sax bu leen fa dem di jox ñi chance boo xam ne dañoo génn pour am luñ wax UDP o UDP militancy because we all know ne yéen kenn va eh, violence kenn violence si te kenn jógul pour intent of causing war because PIU officer yi naan xale yi dañ bugg a indi woo si suñ dika bi xale yooyu indi wuñ benn woo yéen miy jog di leen attaque yéen miy PIU officer si dem ba kër Ousseynou Dabo di leen attaque ci mbedda mi foofu ci koñ bi yéen yéen a bugg a indi woo ci dëkk bi parce que you people are hungry war Ousseynou Daabo rek Ousseynou Daabo rek ak UDP ñoo ñu duñ jóg di indi woo ci dëkk bi parce que Ousseynou Daabo lim xeex 22 years te woo mënut a am mu mun a stabilise UDP Ousseynou Daabo bu dooroon loxoom bi ci suuf tey mu ne UDP eni koona bu waa UDP nekk génn leen billahi doo leen mun a contrôle dëkk bi doo leen mun a contrôle dëkk bi dama leen a wax nag baara koy na te loolu amul leen sax amul leen sax écoumènes yoo leen a liggéeyee ci gox yee area yi yëpp soo ñaan nañ leen ngir yàlla yonente ba dem leen toog piis bu Ousseynou di oote fexe leen ngeen respect piis boobu jox ko piis boobu noonu muy muy muy président Barrow ba ci suuf ñi koo liggéeyal respect gaay jox leen ko piisam may leen ko jàmma li ngeen def def ngeen ko yéen a ngeen toog di toppatoo seen soxla bàyyi leen ko mu lijjanti boppam with no disrespect nag kenn duñ ko nangul kenn ngeen jóg di di disrespect oncle Ousseynou boobu dafa dog tey dafa dog tey tey la jeex parce que ñun ñi ñëpp fi mu nekk sol nañ bu ba pare ku jóg disrespect oncle Ousseynou dina jox disrespect jóg reyantee yow defantee yow suñ papa suñ nijaay la dafa doy enough is enough dem leen toog yéen tam ci seen kër yi ngeen déggali leen Ousseynou wax you don't need to go këram every day élection bi jeex na may leen ko mu noppaleku li moo lijjanti mu lijjanti ko liy xew mu xew loolu rekk la am pour wax leen ba pare ñun soose yi nañ leen ñu gis suñ boppa bu baax a baax a baax xam suñ boppa bu baax a baax a baax xam fi ñoo teg suñ tànka xam fi ñoo teggi suñ tànka xam bukk yi sàngoo déribe yi xam hypocrite yi nekkul ne ñëpp ñu bañ nag lii bum tax ñu jóg di xéetanteeku nekka di reyanteeku nekka di defanteeku nekka ci ñi ko gis mu wan la ko ñooñu ngaa defantel waaye ku la ko wanut bul defante moom dama leen ñaan ngir yàllaa yoneen tabax am ko bugg a dugg waaye xaw rek laa am pour wax leen loolu rek laa am pour wax leen te PIU bi contrôle leen seen boppa ngeen bàyyi attaque si ngeen naa attaque youth di attaque xale di attaque jigéen ñi shame on you guys shame on you guys te nag yéen nag yéen mi nga xam ne doomi soose piir ngeen nampa ci soose nampa ci soose geño ci soose jël leen seen am leen fayda gu day ni boycott boycott mbooleem loo xam ne daf laa disrespect dañ laa disrespect ko xam ne seen seen nit la mu mu jóg disrespect leen ci whatsapp seetu sam bi mbaa ci facebook bii nii unfriend ko boycott ko delete ko ngeen move on dem seen yoon because you don't need dem ki laa xoot every day ci whatsapp seetu sam ki laa xoot xoot ci ci ci facebook am kooku niiduloo pour nekkaa moom benn friend loolu rek am pour wax leen ko man soose la te tey duma fi laaka benn soose sax pour wax yéen ci soose ci olof laay wax a yéen parce que soose gu nekk dégg nga olof olof gu nekk dégg nga soose man seen nonsense yi du tax ma change suma way of doing my things ba aw suma li ma dee defee suma Facebook moomuñ laaka bi du seen bos na la benn soose wax originately lan mooy original laakaam façon yi laaka bu nekk soose am na ko ci ni ñoo laakee soose façon ngi làkk bu nekk olof am na ko ci ni ñoo làkkee olof joolaa di same thing pël di same thing séeréer di same thing ñun this is the unity lii lay tax Gambia unique ñun dañoo sëyante di fatante di jàppale wante so ñiy binda hate ñiy binda yëfi hate yooyu noonu di binda seen hate speech yi ñoom seen dafa dañ yàggaa mer ayda am nañ disappointment ci soose oo bugga nañ soose teg leen si donkaasi te mënu leen cee teg enu keneen dugal ko fa ñu mer te ni ngeen a waxee soose yi dañ saf de te dañ mun dañ dañ mun a defalal defal booy sëya jigéeni soose dina la jox respect bi nga bugga booy sëya góori soose dina la jox respect bi nga bugga likewise bu kenn tax ba yow nga gis olof ne doo sëya moom bu kenn tax ba nga gis sa doom bu nga doomi olof nga ne du sëya moom loolu is all bullshit mbaa doom bu nga doomi beneen xeet nga ne du sëya moom loof amut kër nopp amut kër nañ leen ñu bàyyi suñ xale yi ñu buggante ñi ñëw bugganteel nañ leen ñu continuer liñ daan def nañ leen ñu continuer xale yi ñu continuer mag ñi ñu continuer ñu toppatoo suñ soxla waaye koo leen gis mu binda ci whatsapp statusam copie leen koo nataalam ñëw ne ko tey ci facebook bi tey ci facebook bi ne leen ko jaxarang ñoom ñëpp ñu gis ko ñu gis ñenay ñu bon ñi apul yu bon yi ñu génnee fe malaan giñ dëppoo ku ko gis génnee ko bu leen suturaal kenn bu leen suturaal kenn ku binda daal ñëw leen ko pam parce que ñooñu ñooy yàq turi olof yeeg turi joolaa yeeg turi pël yeeg turi yeneen xeet yi te fekk ñoom individual few people la man sumay wax dama wax ngir yàlla wax ci suma dëgga parce que man dama jaxasoo si xeet yu bari dama dee jaxasoo xeet yu bari te gisuma benn féeg ci ñoom sose yi riyal ñu ngi riyal olof yi riyal ñu ngi riyal joolaa yi riyal ñu ngi riyal pël yi riyal ñu ngi riyal séeréer yu riyal ñu ngi riyal hey si ñun jullit yi yëpp nga gis dégg waxi xeet waxi xeex waxi kuloo yi gis nga christian bi soo ko ne lan la mu ne la man christian laa du la ne man olof laa de te di nga gis christian bu nekk olof di nga gis christian bu nekk pël di nga gis christian bu nekk joolaa dinga this Christian with different head man jaago yee yëpp waay doo leen dégg ci nonsense yi nekk nii ñun ñun ñun ñun ñun ñun jullit yi si nonsense yi nekk waaye boo seetee suñ leaders yi li ci jullit religious leaders yi suñ religious leaders yi ñun li ci ëpp yëpp ay fake ay hypocrite lañ fu tooy ñu takk man lii moo tax ma respect suma mbokki christian yi tey bu fekkoon ne Adama Barrow christian la mu taxaw ci plateforme billahi du ngaña benn xeet te benn ken du ñëw di taxaw di ngaña benn xeet doo gis christian bi jóg di discours yëfi xeet oo di wax mbiri xeet doo leen dégg ci noise gi doo leen dégg ci nonsense gi te ñoom ñëpp ñu ngi ci dëkk boobu bokk koo ñun ñu nekkaa moom ñu nekkaa doomi réew mi bokk koo ñun añ leen ñu waxante dëgga suñ kilifa diina yi jagaraat leen seen toogaay defaraat leen seen toogaay ngeen jóg ni ngeen doon duggee ci askan bi di utal Adama Barrow ñu ko vootal noonu ngeen war a duggee ci askan bi ku nekk ca gox ndig million yi leen Barrow jox yéena alkaali yi seefoo yi million yiñ leen jox pour ngeen jukk président di jàppale président ba toog ci million yooyu ba tey lekkaangu leen ko yépp jóg leen ngeen jël ci million yooyu ngeen dugg ci askan gee gox gi def seen communauté yi benn nit ñi nekk benn dina jël nag time pour nit ñi xiil pour ñu nekk benn waaye ngeen bàyyi tam su nit ñi fragile leen mer ngeen naan let bygones be bygones let's move on fii kenn mënu fee move on let's forgive and forget ba ngeen ñoo ba ngeen jóg di saaga nit ñi di naqaral nit ñi di wax nonsense si nit ñi Adama Barrow di taxaw ci plateforme am bi nitam ñi di taxaw ci seen plateforme yi di saaga Ousseynou Dabo di saaga suñu xeeti soose gi di saaga ku nekk kenn waxut ne let's forgive and move on waaye tey biñ ñu jógee ñun soo di defend seen boppa di wane li leen naxari ñu naan forget and forgive and move hey bàyyi leen jëfi hypocrite forget uh, forgive and move on fii kenn forgetu fi fii kenn du move on bañ am justice bañ bugga naada du fi xew du demee noonu du yombee noonu forgiveness dafa fekk yow mi def nga am responsibility nga ñëw apologize to the entire nation sa rudeness yi ngeen def ci plateforme yooyu yépp ba pare ñu soog a mun a jóg waaye duñ mun a move on fekk teegalante wuñ ni ngeen jógee di disrespect di def yëfi ñàkk a jom di jaay ne ma président bay àndal lu ma neex laay wax ci suma plateforme bi ba dem boo moomu war naa dem taxaw ci di entire Mandinka communauté war àdd Mandinka communauté yi nekk ci Gambie yépp apologize leen likewise bara parce que yéen wax leen ma fan ngeen gisut eh, eh, soose si baro yéen toog foofu naan soose duma ruur te baro nekk soose di leen ruur xaar leen nag téegalante gaa ngee jot si téegalante gi ngaa jot si ñun ñëpp yéen ñi fa nekk ñun ñëpp dina liy dina métti si ñun bi nekk fii def ndig suñ bokk yi dinañ leen yónnee waaye man suma li ma am fi mu nekk pour suma soose yi la doomi soose xaalisi soose jox ko soosee ñu xeex añ leen su su xeex rek la añ leen ñu xeex waaye duñ fi forgive duñ fi move on ngeen génn apologize ngeen génn apologize nonsense too much of nonsense is too much too much of hypocrisy is too much te ngeen bàyyi Ousainou Darboe ñoom moom man nag fi mu nekkat from tey am in solidarity with uncle Ousainou bem jeex tak sol naa mbuba mi taxaw ku ko fi disrespect ma ñëw disrespect sa baay disrespect sa nijaay disrespect sa entire generation what a kind of a nonsense is this góor gi mënut a am jàmm ci disrespect te lim def ñun ñu ëpp suñ baay yi defuñ ko nii lañ fi defoon Banjul googu noonu suñ jógee ñu naan soose yee yaaya jàmmee jotee soose yee ama yaaya jàmme problème waaye ba ba yaaya jàmme jógee di téggal ndeyi seen mbokk yi ñoom itam tere jóg naa yaay a ah, baaxu dugg na fi génn na fi man bugguma koy mar taati taat nga am ay góor yi caapa taat yu nekk ci facebook bi ay góor yi caapa taat yu nekk ci facebook bi di ut palaas mel ni ay mbotti kooko ñi ñuy wax seen cër yu jotut yi ñàkk fayda ñi ñi ñi ñàkk fayda ba bugg a dee naan roxi malik loolu la ñoo xeex just because of lan yëfi waaye nonsense yi nii di ut paas place yow boo tekkiwul dara boo leen tekkiwul dara fa ngeen nekk boo leen tekkiwul dara li ngeen naa yaakaar mooy ñëw toog Gambia di lekk ci corruption gi di lekk ci xaalisi Gambia bi ndax ngeen mun a nekk dara ay ay ay caapataat rek ngeen soo leen paree fekk gis jigéen góor ñi nekk Facebook ngeen di di def yëfi góor jigéen di xeex benn jigéen ba kañ di xeex benn jigéen ba kañ di martaat loolu ba kañ ñàkk a jom dee ñàkk a jom dee te su doon seen sista si doo leen xeex su doon seen seen seen broda si doo leen leen xeex lii mooy yëfi caapataat naan waa soo leen paree naan nañ forgive kii dafaa xaste kii dafaa xaste man man nag man ku ma ku ñëw ci suma timeline bi ku ñëw ci suma wall bugga ma faa disrespect dinaa jënda bota yu bari di leen di di xam ngeen fi ma koo bota sax xam ngeen di koo bata seen cër yu jotu yi ni ngeen naa ñàkk a kalaas suñ waxee ngeen naan eh, eh, roxi Malick Lo ah nga pati nguuleelu UDP soose yi who the hell are you guys yéen yéen a moom suñ dëkk bi ba ñun duñ fa yëngatu ba duñ fa kiiji kiiji what the is this roxi Malick Lo jigéen la te ñëw na liggéey na ñëw na liggéey na xam ga njëriñoo ga ngeen daan njëriñoo di ñuy sàcca di leen jox ngeen di di lekka moom ngeen amatut bunta yi la tëj moo tax ngeen di ko xeex hey bu paree bàyyee leen Banjul City Council ngeen yéey ko ngeen seet ni Banjul di mel dafa gën a dellu gannaaw ni taat te du xaadim gaya gi jël suñ xol yi dëkk bi conquérir ko ba ndox amut fu mu jaar toroxaande gi ngeen a torox torox ci next five years yi ñëw di ngeen xam néegi kirinting yi daanu ci seen kaw ngeen toog foofu di jaay jomba ñaaw di wax wax ju di def def ju rëy teg bët palaasi roxi Malick Lo bi teg ko bët teg ko bët ba bu dee lii lan la nii bu roxi dee bu mooy tuut ngeen jël ko rek def ko ci soos soos ko ci mbuuru lekka ko soos ko ci mbuuru lekka ko man fogoon naa ne bu jigéen toogee toog ci palaas yi nii di ngeen leen support gën a dooleel jigéen soo gisee jigéen yu bari du ñuy pare pour jóg pour dugg ci mbiri politique góor ñu mel ni yéen la si Johnson yi ngeen naa toog di garam palaas di wax rek nekk si Johnson yi garam palaas di wax rek am na si ñoo xam ne dépasse sax ni tay romba ci Johnson bi may leen ko ñu dugal ko seen poste ñu ñoo dogo dogo nii ñu ñoo dogo dogo ñàkka ngeen jom soose eh, olof pël séeréer joola ni na naa jom loolu kañ la daan am si suñ société xanaa tey xanaa tey xanaa tey leen ko boor tegee ko boor ngeen bàyyi ñu si suñ jàmm parce que bugguñ bugguñoo mer bu fi kenn ñëw naan forgive leen or bygones bi bygones ñun ñëpp benn lañ suñ nekkoon benn li ngeen ñoo won doo ñu ko won won ngeen ñu carrément fi ngeen tollu ci ñun ñu ne dinañ leen won carrément fi ñoo niñ ko respon niñ ko respondé ak liñ cee def ak liñ cee def who the hell are you ba ñu war a forgive bygones forget move on du dem justice rek mbaa cotti ndeyam du fi baax baalal leen ma jégal leen ma ci suma kàddu gi lii ngi fi dama mer sax dama liggéey nii xar leen ma jóg dem solo pour liggéey dama ñëwoon rek pour def lu gàttal yi xam ne rek su ma waxutoon tey rek billahi su ma waxutoon tey rek dama àgg dama duga dama duga ci suma moto bi drive du ma àgga fa ma dem dig dinaa mer be taxawal moto bi def live so moo tax ne xaaral ma def ko bàyyi leen hypocrite gi naan ñe fàtte leen ñun ñëpp benn lañ suñ nekkoon benn nit ñi dinañ jóg di bindal yi si seen whatsapp status yi di sàgga di bindal ay evil dañ evil ay bampaaya yow yow mi binda na ñun soose yi dañ evil bampaaya lañ dañ musa ñëw naan sa dereti njuupa njaay gi suñ doon bampaaya xam nga deret gi ñoo naan dañoo ñëw na ko cap si sa diggante tànka yi macca ko naan ko dem suñ yoon buloo di aas bi nga doon ñàkk tekki bi nga doon sa tur nag ñu ngi ko amee ak seen whatsapp nomba yi yëpp soo leen yeboo ngeen ceeñi nomba mbaa ngeen pare lii is all bullshit we will deal with you guys dealu ñoo yéen ñëpp de waaye yéen dinañ deal with you jërëgéen jëf